daa bëri yéen kaay gi ñu xamal lan ñu en tout cas li am ba ji nag mbir mi leerul benn yoon ak ci bopp askanu Sénégal yéen kaay gi du l'observateur ñu fekk fa nag nguuda mbuub moom nag dañu ko daal di laaj ne ko ndax ab député am na sañ-sañ di gagné marché la mu tontu nag mooy ab mandat député loole nag maanaam wul ak fonction chef d'entreprise yéen kaay groupe promo consulting bi mu ñu xamal lan ñu jamono ji nag coow li moom mën nañu ko daal di dakkal te jël dund gi nag jox ko ñi nga xamante ni maanaam ñoo ko soxla ndax askan bi am na ñoo xam ne mënatu ñoo xaar yéen kaay gi de Le Quotidien ak Le Soleil ñu xëy di ñu xamal na ñu lu jëm ci kàddu yi nga xam ne Macky Sall maanaam fan yi yëpp ma ngi ko yëkkati di sàkk ñu daal di baal réewu Afrique yi li nga xam ne mooy seen bor bi Macky Sall nag jamono ci maanaam am na ñu ko jàppale ci mbir moomu ndax Pape François moom la xam xamle nee na pays yi nga xamante ni daal dañoo am doole nañu jéggal réewu Afrique yi seen bor yi Emmanuel Macron moom nag dàqu benn yoon daana cay fekk si Macky Sall ak ancien premier ministre Tony Blair ak Mohamed Cisse yéen a kaay gi di Le Quotidien mu ñu xamal la ñu en tout cas li am ba des sall mooy Macky Sall yoon wi nga xamante ni na ko ngir nag ñu daal di jéggal maanaam pays Afrique yi seen bor yi loole nag ma ngi waaj a sotti yéen a kaay gi di Libération mu xëy di ñu xamal la ñu Ndakaaru Njaay jamono ji ñoo ngi mel ni lu toog ci a bomb maanaam sous tension la ko waral nag mooy cas communautaire yi jamono ji ma ngi daal gël tàppe am na benn Libération moo ci xëy FMI bi nee na lu toll ci nag ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn ci ay milliards la nag daal di jox Sénégal ma ngi ci le témoin yéen kaay gi du source a mu xëy di ñu xamal naan ñu Abdou Lahad Ka maire bu Touba moom nag daal nay génne lu ci deux cent vingt trois millions daal di koy jëndee ak dund ci turu nag conseil municipal bu Touba yéen kaay gi réew mi ko dèjà mu xëy dikkal ñu nag ci commerçant bi nga xamante ni moo dëkkee ca Louga moom nag daal nay wàll lu toll si ñaar fukk ak juróomi nit yéen kaay groupe promo consulting bi daal nay dikk ci Covid 19 bi ni nga xam ne moom lay lawee maanaam ci région bu Louga nag maanaam moo amee covid 19 bi ca Touba andi nañ ko nag ci Ndakaaru yéen a kaay gi de la Tribune nee na ñaar fukk ak juróomi nit ca Touba daal di nañ leen di ber yéen a kaay mu xëy di ñu xamal ñu situation bi kay jamono ji dafa jekk-jekk rek explosé fi nga xam ne mooy Louga Touba ak caaro yi a kaay gi de mu ñu xamal ñu nag kenn ki nga xam ne moo desoon sa hôpital Daaru Marnaan ca Touba amee nag li nga xam ne mooy covid 19 bi daal di nay wér niki démb sa ngoon la résultat génn tey ji nag dina bokk si ñi nga xamante ni moom la Abdoulaye Diouf Sarr di wax ne maanaam wér nañu yéen kaay gi di réew mi quotidien ak le témoin mu xëy di ñu xamal lan ñu en tout cas lu jëm ci mbirum confinement Macky sal nag ma ngi alerté ndax nee na jàngoro ji am na fu muy toll ci confinement général fa la ñu daal di jëm yéen kaay gi di Vox Populi moom mu daal di xëy ci ñi nga xam ne ñooy waa LONASE nee na nag LONASE moom maanaam li ki Sall wax ñoom faale wu ñu ko fulaa lu ñu ko ndax ba léegi nii LONASE nit ñi ñoo nga fay dajale maanaam di jouer nag lu ne mën na faa daal di xew yéen kaay gi mi quotidien ñu xëy daal di fekk góor a xuma moom nag daat nay def ay révélation la mu xam le ne ne transporteur yi nga xamante ni maanaam ñooy dem région ak région di yóbbu dund ñooñu nag ndekete yoo dañuy yóbbaale ay client maanaam di fayeeku vingt cinq mil japp trente mil yéen kaay gi di esat daal di xëy nag ci El Hadji Ousseynou Diouf mi nga xam ne journal bi dafa xëy di laaj ndax nekkul ki nga xamante ni moo gën a nekk kàngam ci wàllum football ci Sénégal ndax moo nekk sénégalais bi njëkk am ballon d'or ci qualification mondiale 2002 huit match El Hadji Ousseynou Diouf football but yéen kaay gi mu ñu xamal nañu en tout cas li am ba mooy El Hadj Diouf gaynde la ci biirub terrain yéen kaay gi di sunu làmb xëy nag dikk ci Modou Lo mi nga xam ne moo ëlëma ñi nga xam ne ñooy waa Pikine journal bi nee na tegal na chaise Eumeu Sène daan ko jël bu rëy boo xamante ni ba léegi nii maanaam dafa naqari Pikine ñu ne déet waaye ñu boolewaat leen Eumeu Sène seen Lo daal di koy dóor mu daal di kaawoo